bëgg bi ñu bëgg ñun ñëpp dundandoo te dundu jàmm respecté tamit ak ak wàlleefu ñëpp ba suñu dëkkin gëna neex ñoom jàngal nañu Sénégal kat ndekete yoo loolu aada la fi woon loolu ndekete yoo lu fi sax la dem sax ba ñu génnee ci ay baatu wolof nawle mais aussi. Euh, Euh, ñu xam leen ñu ne tey ji tarixa yi tamit ñi nga xam ñoo ko sancoon ñoom bëggoon nañ même ku nekkul sax jullit nga amax moom jàmm waxati maax nag ki nga xamante ni jullit la mu nekk tijaan wala mu nekk murit leneen bi tamit ñu wax ko mu am solo mooy kenn mënuñu def suñu société mu jëm ëllëg bu fekkente ni xale yi joxuñu leen cër parce que xale yi nga xam ñu ngi taxaw di taxawaalu si dëkk bi ñaaw na ndax nit ñu ne jullit nañ si quatre pays quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans ñu gis xale yi torox bi ñu torox ñaaw na ñi parce que tamit loolu ci vivre ensemble parce que nee nañ xale yi nga xamante ni suñu leen bàyyee nii mën nañ doon ëllëg ay terroristes wala ñu doon ay man te loolu ñaaw na si suñu dëkk beneen bi muy wàllu jigéen ñi parce que jigéen moom la yàlla jox responsabilité li nga xamante ni muy éternité li nga xam moo war a wëyal mbindeef nit góor mënul jur doom du dëgg kii yàlla jël jël machine am organiser ko si biiru jigéen nga xam ne kooku war nañ ko wekk benn ñaareel bi jigéen ñi dàqu ñu leen jàng ñetteel bi mooy kër goo gis mu gën a organiser fekk jigéen am na taxawaay bu mu fa taxaw tey jii banque mondiale expliqué ne ne entreprise yoo xamante ni jigéen ñi ñëw ko diriger seeni xaalis dafay gën a bëri ngal la boog ñooñ delluwaat fonk jigéen te soo xoolee livre bu mel ni Cheikh Amidou Kane mi aventure ambiguë d'ailleurs Alaaji Amidou Kassé wax na ko fi bi demee ba dëkku jalo bi am problème kan moo ko lijjanti c'est pas la grande royale moo jox nit ñi xalaat bi te ñun wolof dañ daan wax naan soo amee problème da ngay waxtaan ak sa ndegenaay moo wax leen ndegenaay boobu nekkul keneen lu dul jigéen dégg nga kon su ko defee daal suñu delloo fu ñu cosaanoo jël suñu aada li si gën a am njariñ ñu yëkkati ko jël nag parce que ñun dëkkuñu si àdduna boo xamante ni ñun rek a fi nekk européens yi am na loo xam ne ànduñu si ak ñoom am na jikko yoo xamante ne am nañ ko ñun ñu noonu mais am na tamit yoo xam ñoom ñu ngi koy def si wàllu organisation mu jege mu baax loolu tamit ñu jël ko su ko defee li sa nga doon wax enracinement xam li nga doon ubbeeku ouverture te ngeej yéen a nga fóon yéen journalistes yi surtout waa Dakar Actu je vraiment mention spéciale parce que non seulement yéen a ngi woon Tëngéej ak yeneen journaux yi mais fekk ngeen ñu Saint-Louis ndar mu fees dal tamit ak étudian yi tey jii yéen a ngi fi IAM cet après-midi xam naa ko moytu di ngeen ñu fekkaat université sur le panel économique vraiment euh, aussi loolu dama koy wax parce que journalistes yi suñ leen joxee seen gëdd tamit dina tax lépp loo xam jaaduwul si dëkk bi dinañ ko wax mais li nga xamante ni baax na ñu war ko séddoo ñoom tamit dinañ ko wasaare loolu nañu war a comprendre mooy rôle journaliste te yéen liggéey boobu yéen a ngi si liggéey bi ñuy wax vivre ensemble bi tey bu fekkee rek wàllu intellectuel yi rek ñoo si nekk kon kii di jaay caaf danaan ah dara xewul kon war nañ defee comme ni ko defee nii tey di wax wolof ak yeneen làkk ñëpp xam ne kat dëkk bi ñoo ko bokk waaye dëkk bi soo ne ñoo ko bokk nanga nga respecté nit ki dégg nga parce que ah yal nañu yàlla musal si ah gis nga grand frère mes chers collègues journalistes dafa am trois liens man jàngoon jàngoon naa tuuti arab gis nga islam ñetti wàll la al ilaqa bayna al abdi wa rabbihi wal ilaqa bayna al abdi wa nafsih wal ilaqa bayna al abdi wa xayrih islam trois piliers la relation bi nga am yow ak ki bind muy sa buur relation bi nga am ak sa bopp ax relation bi nga am ak keneen ñetti piliers yëpp boo si wàcc rek sa diine matul